auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante suñu borom ñi ngi julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñaanal suñu sëriñ suñu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla fi yàgg waaw ndax nag Sénégal yëpp benn bopp kilifa diine yëpp kilifa yi na te maam Seydi Hadj Malick da daan wax naan sama njaboot ak sama taalibe bugguma ñu ràññeet leen kon ñun njabootu maam Seydi Hadj Malick maa ngi nuyu ñëpp du ma laaj kenn mu fanaanoo ndax képp kuy jigéen naqar nga fanaanoo du laaj kenn kuy góor mu fanaanoo ndax góor bu ne fii ci Sénégal gàcce nga fanaanoo gàcce nga fanaanoo ndax dañoo toroxalaat jigéen gàcce nga fanaanoo ndax dañoo humilier jigéen gàcce nga fanaanoo ndax dañoo doo jigéen boo xamante ni nii dafa toll ci génte loolu nag mbéjum kanam la borom moo koy fajal boppam borom mooy ñan jigéen ñi d'abord borom mooy ñan jigéenu alliance pour la république d'abord waaye dañ ci invité jigéenu Sénégal ñëpp di ci invité ñi nga xamante ni nee ñoo posé les premiers jalons que parité am assemblée nationale et j'interpelle directement ma cousine et sœur Aïda Mbodj di interpeller ñi nga xamante ni nii ay jigéen nañu te Amy Ndiaye ñu di séqal nag ñoom teraanga ku ci mel ni madame le premier ministre Aminata Touré démb dégguñu ko mu condamné li nga xam ne xew na assemblée nationale te Amy Ndiaye ñii bi moo ko teeru ba muy wut suffrage sénégalais yi foofu kon rafetoon na mu condamné loolu ñu ko def di dañuy lancer appel tey femme politique ñooy wax femme yi bokk ci état waxuñu dañuy lancer appel état lancer appel ministre de la justice ndax les faits sont sacrés et les faits se sont déroulés devant di wax ni moom mooy ministre de la justice mbir mi ci kanamam la xewee et c'était l'opinion nationale et internationale foofu nañ toroxalee suñu camarade boobu di Amy Ndiaye ñii bi di jigéeni Sénégal di jigéeni jàmbaar xeex ba doon maire ca dëkk ba mu ba mu ba mu nekk kon kooku dañ ko war a jox cëram comme ni ñu joxee jigéeni Sénégal yëpp cëram di wax ni nag lii raam ci ñag bi la jëm ndax tàmbaliwul fii assemblée nationale ba dañ fa doon taxaw ci kaw table damm table assemblée national moom liee ba nekk assemblée nationale yàgg na fa musul damm bi fa ñenn ñi duggee la tàmbalee dam di wax ni démb suñu camarade pompier moo ko fa jëlee mun tëdd sur civière ëllëg mën naa corbillard dina fa génne bu lii dakku ndax li xew ci réew mi xew assemblée nationale mosuñu koo gis dañuy wax ministre de la justice di ko wax sénégalais nii Hercule ak Rambo amul seen place assemblée nationale lii jarul lëngay parlementaire flagrant délit la ñépp a ko gis ñu taxaw def li ñu def wéq jigéen ba saa ça veut dire que tu as utilisé toutes tes forces pour toroxal ko kon ñooñu dañ leen a war a bu euh, punition bu tolloog li nga xamante ni mooy jëf bi ñu def kon ñun nous restons debout ni ko président aw waxee dinañu dem déposer suñuy ay plainte collective yoo xamante ni nii képp kuy liggéeyu Sénégal ñu la ci invité waaye dinañ dem gisi ji chef religieux yi ndax nag ay régulateurs sociaux nañu bu jàmm amee ci réew mi dinañ ci ñaan bu le safaan amee ne ci réew mi dinañ ci ñaan dinañ ci dox li am njaay ñii di wax mais loolu la politologue yëpp wax moom la journaliste yëpp wax moom la politicien yëpp wax kon nag ñun ñii di jigéenu alliance pour la république ñun moom nañu wax daayira fanatique amu fi place fanatique amu fi place di daanu ay di dóoraate mel ni da nga nekk si daayira wala leneen te kooku tudd la tuddaanu la waxul lu ñaaw xastewul kon nag fii chaque jour ñu saaga fi président Macky Sall c'est la première institution du pays assemblée nationale mënoo faa suba ba ngoon jot te déggoo lu ñaaw ñu koy wax président Macky Sall ak a mën a muñ ak a mën a baale ak a nangu muñalante ndax ñun boobaak léegi ñu ne ñu ngi koy dégg bu doon bu ñu déggee ñu xas président Macky Sall wala ñu saaga ko ñu dóore kon ñun ay yàpp nañuy nelawee suñu yoon ndax chaque jour ñu dégg ko ñu suñu xol dafa fees la parole parce que mouvement des femmes moo jóg ëllëg yeneen structure dinañ jóg dañoo jóg ci turu mouvement des ndigalu présidente bi muy madame Ndeye Saly Diop nga xam ne nekk tey moo tax suñu gërëm ñëpp di leen sant di baalu ak wasalaam merci beaucoup